aleykum leen di jot li waxtaan woo xam ne sëriñ Seex Fat Tàkko Jóob di nijaayu sëriñ Murtala moo ko doon waxtaane ci mbirum sëriñ Tuubaa sëriñ Abdullahi Jaxate moo ko woowoon ci këram ngir bëggoon mu waxtaanal ko ko mu sotti ko ci bànd ngir mu nekk fi di ab denc waxtaan wi itam ku ko déglu na nga ko déglu ci ab yar ak i teggiin ngir mi ngi jëm ci waajtaayu sëriñ Tuubaa ci mujj ci njaareem jëm si Tuubaa fi ko bindeef yi mujjee gise ba ñu andi ko Tuubaa waxtaanu loolee moom la ko doon laaj moom ma ko fekkee na mu amee ba ni mu ñëwee Tuubaa mu waxe ko ko noona ñu mën koo dégg di ko fàttaliku te di ca waaru di ca yaru njël beenu band bi sëñ Abdoulaye Jaxate moom mi ko doon laaj moo ubbi band bi ci waxtaan ngir xamle waxtaan wi li mu ci jublu ak ci mu ko doon laaj ci njël beenu band bi ba tey Baye Modou Jaxaane di jàngkat di taalibeb sëriñ Basiiru jàng na ci bopp bi moom it sëriñ Abdoulaye moo ko ubbiloo njàng moomu ci bopp band bi kon nag lu mat a déglu la waaye it lu mat a amee ab yar la ba man koo dégg la cay njariñ nga jariñoo ko ngir lu roy ci ña nga xamante ne ñoo fekk woon xew-xew boobee yar ba ñu amee woon ba tax la mun ta ñàkk ñu def ko ba mu sotti coleet nu nit nu roy leen ca yar boobee ci bu ñu ko dee waxtaane nu déglu ko te man koo dégg ngir ñoom it ay taalibe lañu woon te gëneesu leen a bëgg te ñoo doon gis sëriñ ba te ñoo ko amee woon doon ci toppatoo la mun ta ñàkk ba mu sotti kon noonu itam nanu leen roy coloole ngir ëllëg day ñëw bismillah
wa sallallahu ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jaga kulli bi hamdin wa shukur ila wali mu'min wa shakur قل يا ولي يا خليل يا نسير للمؤمنين إنك الحاج البشير حسبت فورا رجوانا كل من به يكون مسلما يا سفما حسبت فورا رجوانا كل من به يكون محسنا يا سفما حسبت فورا رجوانا كل من به يكون محسنا يا سفما نفعتنا بأهل الإيمان فردا فإن جمع بالأمان أبرتنا بي وبالإسلام فالتفت الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والأولياء من أمدا خذ صلاة وسلام أبدا لهم كما أعطيت من لم يبد إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء مرسل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وسلم سؤال للمنتقى ما يزور بلا نهاية وخدمة تقبل يزل سيد الورى ما اختار يا باغي أنجار مدارنا بأسل وتسلم في أبد أن الذي لك يقول من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورل بالدل واذكر قطبيا نافع سل وتسلم بالترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سلة الذي مسمد على النبي وآله والأمة قدامك إلى الإله إلى الإله يا من أبان يا مجلدا أو جل كل مسلم ومسلم ما زاد يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارة لسان مؤمنة مدة لكل محسن ومحسنة أهلا بساد الدرى مدتنا وجيني أمتي رسول الله عليه خير صلاة الله مدد من مرجعي يقول كن يكن يا من يكبر من لم تكن ناجيتك اليوم بيد وسلطان المؤمنين يا ولي الزكو يقول لي كن فيكون عاجل. من كم يكن ولا تاج نفيت إبليس لغير بدا بثالثا وكل من لم يبدا وجي لمن ختامه وأسن وأسنه مجل من لم يسلمه كإن يوم ويل من خدامنا لما آذنا مجل من لم يسلموا ويل من خدامنا لما آذنا مجل من لم يسلموا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته majlin xamal ne sëñ bii di sama baay di sama nijaay man Abdoulaye Jaxate eh, maa ko fi indi fii ngir bëgg mu fàttalinu ay waxtaan yu mu jële woon ci Seexul Xadim radiyallahu anhu wa anna bi amin waxtaan yooyu nag képp ku ko dégg na nga ci am pësteefu jariñu ji te xam ne benn baat bu sotti ko néewu ji na ko Seexul Xadim waxtaane woon ak moom ñi la na ko xamale dañ cee bëgg nag di jariñu mu mel ne noo ngi jànloog Seexul Xadim moom mi jànloo woon ak moom jànloom ga di sunu jànloog moom la mu ko fasal la itam mu di ca fas mu di ca fas yàlla nangul na ko ci barke Seexul Xadim sallallahu alayhi wa ala bi amin mu di nijaay Cheikh Fadi Sakko Diop ku foor la woon ku ñu xamal ku sëñ bi jege leen boppam daa ko liggéeyoo ba gërëm ko ba wàcce ko ci kanamam wàcce gam ko wàcce tase naag ak bëgg a wàccam ci ay fan yu néew yan yàlla jëriñ ci barkeem
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عبد الله جهته maa ngi lay sant di la gërëm ndax li ngay sàkku ci man man maa ko waroon a sàkku muy lu ma mën a bàyyi xel dina mu desal ma fi man na sàkku gi nga koy gi nga koy sàkku ci man man maa ko waroon a sàkku moo tax ma jóge te sama barab dikk fi yow loolu yi nga xam ne mooy li nga xam ne xam ko nekk na ci bépp taalibe mooy ku baax ki day amoon na ñett bunt ci sàkku sàkkeetu penku wi benn ba buntu moor mbay la tudd benn ba buntu wataba la tudd dina ci kër sëñ Basiru benn ba buntu Idrissa la tudd soo ceerno daa dal sàkkeetu gànnaaro Idrissa moomu Idrissa moomu Idrissa moomu faal waaw Idrissa faal waaw
dëkk tawa waaw xam naa ko
sàkkeetu gànnaaro waaw
moom ñett mën na ñetti téeméeri meetar waaw
benn bunta nga ca boo xam ne maxtaar si la moo ko amee woon waaw
sàkkeetu soowu wa Hmm.
benn bunta nga ca digg ba boo xam ne sëñ Paate Amar moo ko amee woon waaw
sàkkeetu si sàkkeetu siinu waaw
moom la tali bi romb waaw volontaire nga jàpp sa ci kër Mbàkke Jaxate waaw
moo ko weesoo ba dox ay meetar waaw
buntub sanxit fala ne waaw dañ koy sëñ sanxit Mbàkke waaw
ba doxee ba weesooti ko lu lu ab diir waaw
naa war a àgg ci ñetteelu boobu ponk waaw
buntub sanxit fa ne waaw
moo ko weesoo buntub jigéen ñi sëf yi waaw
waa penkoo ko sëñ jaaroon tuuti waaw
noo ko beesoo bala ngaa xàgg ca tonk ba tolloo kër sëñ Basiru boo nattee buntu jigéen ñi ak tonk ba nu borom digal na borom tubaab mu def benn bunt ñun sunu borom di suturaal dem gi nag mu xëy borom ci tubaab ci bunt yooyu ñu bàyyi see dox dootu ñu leen fattuk fay waaye bàyyi nañ caa dox daal benn din nañ tabee bunt bii nag jàkkaarloo ko sëñ mën numbe fab nag bëkk ne yi yu naw yi yu sëñ ma taal si la amee woon ni ko Cheikh Fall Xattaaba ak sëñ Ibnu Omar ak Amar Diop tey di ministre ci Daaru Xudoos bëkk ne yooyu dencut waaw bëkk ne yooyu dencut yooyu nga xam ne dencut mu boole leen yaba yaba si fi man indi sëñ Jóob Ablaay Jóob lew na indi sëñ Jóob Ablaay Jóob lew na waaw ak Ablaay Tàkko waaw ak Mbàkke ga jega Ndab ga jega waaw ak Sidi Njaay doomi Njóogu Njaay ci bunt yooyu nga xam ne waaw kër gi waaw bunt yooyu yëpp ñi ko amee tey ñuy jub ñoo xam ne ku ci ne fa nga newoon defoo fa dara defoo fa genn gaaf sëriñ bi dogalal leen nag waaw digal leen nag ñuy dox ci benn bunt bii ñu dugg ci kër gi waaw loo xam ne digg ba ca jot na ku ca ne àggal fa mu doon liggéeyee ni ki buub waaw nañu doon def barbe waaw ñoom ñëpp nag ñu doxaat ci bunt ba moo ub ko muy sa bunt boobu waaw mooy bunt bii sa féete mooy buntam bii nga xam ne moo féete kër sañ mën numbe waaw
ñu di ko wax buntu Seex Jóob waaw
mu ndaw waaw
loolu moom la sunu borom def ñu xam ne sunu borom da ko def ngir bu déwénee bu sëñ bi dem bay dem Tuuba mu ànd ak sutura waaw
ndax bi muy dikk Tuuba bés bi nga xam ne moom la mujj waxante ak man man mi nga xam ne man la mujjee waxante ci doomu aadama yi waaw
bis bu dibéer la yoor yoor bu dibéer mi nga xam ne dañoo ca ndokk waaw ndokk ci ra- root ko di sayin mbàkke waaw moom di ki di sattim ndox néeg bi am na buntub gànnaar ak bopp siin sëriñ baa ngi toog fi suuf lal bu ma bu ma yàlla dimbaliwoon bu ma defaral ko mi ngi toog fa bopp lal ba ca ndeyjoor fulkul masoon nekk ci kaw lal bi fulkul masoon dafa noon abdu xaadir takkal kom néeg abdu xaadir takkal kom néeg ku mu noppee mu ne Cheikh yow mi dàq na ñëpp lal wutal ko lal na ko mbay ji wutal gaal moom mi dàq ci ñëpp gaal saa xewar na ko wutal kër moom mi dàq ci ñëpp kër ma liggéey jëfira na ko wutal jëfira moom mi dàq ñëpp jëfira fekk na ñii ku ci nekk sa maram am na xarala waaye li li na na nga ko mën a yow rek la yàlla dogal nga mën a ko ko desub dibeer la ñu jekki xarom ba ma may dikk maa ngi duggee ci buntu gànnaar bi man di ñang bi ma woo ci bitti ma dikk fekk na gannaaw laal bi bi mu sottee woon ba noppi ndax ma ne deflootuñ la lu may buñ la soxlaa gis la bàyyi kuude bàyyi minisi lii mu jëm lii waxam ji mujj jëm wax ak doomu aadama mooy mu wax ma ne ma waxal ma sëñ afe ne ko bu julli joti seen ni jiite fee gàmmo ba nga xam ne jooja wax ci sama nopp la mujj a dugg wax naa ko foofee ne ko ama saar dafa tawatoon may ko saafara jooja waxin moom mujj a dugg ci noppam daal di fay jóge lii di yor yor dibeel yi bàyyi gannaaw bàyyi na jàkka ji man aw ma lu luy sama ndigal lu may bu waxee ma tontu jege ba bu baatam yëkkati ko rek ma dégg ko waaye waxaatut waxaatut ba dellu ca daara ja dellu jot ma dellu ci daara ji daara ji benn jàngala bu yaatu nekk ci biir kër gi moom dafa maa ngi ñii ñu ci la ciy nekk waaye la tax man maa dellu ci sama kër gee ca biti ci gannaaw kër sañ Mbàkke Jaxate moo di feeg génnut boobu ba jëm ci saw du duñ sañ a dellu duñ sañ a dellu tëri ci kër yi na am ci biti waaw mbirum dem bi nga bëgg a bëgg a xam nag beneen xalwatu da ko jëkk ren ji du yàlla di del fi ci déwén sa waaye dana mat juróom benn weer wala juróom yaar wala juróom ñett mu def xalwatu xalwatu boobee bankaal la def bankaal mooy ki ñuy wuppe defal ko bën bën bu jëm sow ci baraagu sëriñ Isa bi wupp lu bankaal ba day xëccal buum bi mu def foofee xalwatu buntu baraag ba nag am buntu penku waaye fi nu féete noonu buntu néew fi dañ ko bënn ca kaw nga xam ne boo xëccee rek mu di ko wupp te doo ko gis ñun ñeent noo doon ñun ñett ñi si maag Cheikh Fall noo noo fa sax kem xalwatu ba waaye bés bu ci ne nag am na ku mu ku mu wut ñeenteel ko suñu jëm Abdoulaye Touré ñeenteel na ma ay fan madu noon xaaw ministre ba nekkoon ne sëñ Mbàkke bu sa ñeenteel na ma waaye nu ñett moom faranu sax ba xalatu ba jeex yaa cafaal maa cafaal ak imnu am na it fi taal moo xam ne du nangu mu fay atum jalamaane jeene ku ko tàkkali dellu si yee kii yi war ay sos ci yow waaw tëdd kooko di xool ba mu génn ba mu war a génn mu dem tàkkal ko di ko yee ki sos ci moom ba ñeent ñu yegg waaw noonu la ñuy def ba asamaan set amul genn bëgg ci yaa dina ci benn barab wala benn soxla lu dul soxlaam taal bi ci néeg la new
taal ba seen néeg ba mu ne la waaw
upp gi da ngay doxe nag waaw boo jógee da ngay doxe ci sowu mm, lu ma ñeen fukki meetar waaw gis fa bunt waaw nga dugg ci bunt ba waaw waral ba dikk fi kanam waaw takkal taal bi Takkal taal bi.
boo noppee doxal fa nga doxal sa moromat bi dem foofu lay doxe waaw waaw moom di kéemaan la ci di upp di ci taal waaw waaw ñu guddi la ñuy guddi la ñuy taal taal bi waaw bëccëg la ñuy upp waaw kay waaw kay waaw waaw kay mu upp bi boo nekk ci taw gi waaw.
am nga seng bi dafa tàng dafa tàng waaw waaw waaw waaw noonu noonu la ñu ko bëgg waaw boo xamee ne boo xamee da nga wupp li wupp sëñ bi li mu li mu neex neex waaw da nga di wupp doo dootoo mën a wéy ba dootoo mën a taxaw waaw ngay wakk sa morom naa ko bëgg mu dikk ci wupp ba wala moom it mu xam ne bu ci dikkee du ci gaaw a jóg mu mu mu fétt rek soxna bi ba xam ne mënatu laa wéy mu dikk fab voilà ñu ne ñu na- def bëccëg bi ba ba ba kër gi sedd taal bi ñu tàmbali taal bi waaw foofee nag borom tuba am na fa juróom-ñeent fan borom tuba am na fa juróom-ñeent fan waaye de waaw torop xal torop torop xalwatu ba waaw
saa yu dem waaw tax na mu bëgg a wane ne xamatut ñaata fan la fi am mu ne ma ñaata fan la am fii ma ne ko am nga fi juróom-ñeenti fan mu ne ma gis nga ko de lu dul ndox rek day ma dal di xam ne gannaaw ñam du fi ak si te ndiwuma ko moo ko waxee man danaa ko xam danaa danaa ko mën a xam bu ko waxoon ku fi ku ko fekkewut du ko mën a xam day na day def nag ay waxam dama ci lu dolli dara fa nga ko yemale rek rek dama ci soppi dara it nan nga soxla mu daal di topp nag dama jox la askan yi dëkk bi bokk na ci soxna Fatikura bokk na ci waaw
ak ñu ma tëkkut ci ci gañe yi ci dëkk bi waaw ñoo xam ne mu di leen jox suukar ak warga waaw
ñu mu di leen jox dara ci dugub waaw man mii jox na ma ca dugub joo xam ne ji ba mu dem denc ma laalu ma ko jaayu ma ko gannaaw ma denc laa ko sokool waaw maanaam toll ci ñett saako wax na ma ne ma na nga bi ma dencagul wax na ma ne ma yow moom mii na nga tabaski waaw
bokk na ci waxam wax na ma ne ma ci nekk sëñ Matar Binta fii mu ne ñu ngi séddale roo yi fekkee di ren ak yi ko dul fekkee waaw
kenn taalul nii bi loolu léegi ma nga ci bëgg bo ma ngay loolu dama koy sosoli ci diwaan ma ngay yem ma ngay feeñ ca ba ba xalatu déwén ba di ñëw waaw
ah dama ko am sama xel la ca dama bañ koo jël waaw am loola ci weer moom
xamatuma weer la
waaw xamatuma weer la ci ngàntam ne waaw
ni ma ni ma ni ma jàpp nag producteur bi ñu bëgg a dem ni ma jàpp nag waaw
ci tamxarit bi lay war a waaw doon moom la ñu war a doon guddi tam xarit waaw guddi guddi tamxarit déedéet benn torop tamxarit ba waaw
ca laay gën a jot ne ca la waaw waaw waaw waaw
ndax dafa wut lu gaal waaw def ko ci penc la wax ne ما بقي لخ- ل- لنفق فهو لخيره مساجي مساجي نيا دفع في قال كفن جمع لا اللي جهاد يقول جهاد لا لا يمجينا
وما بقي من الأرصاف فهو لخيره léegi nekki dem gi nag waaw bi ko sunu borom andee sëñ Moodu Moustapha moomam waaw
mag ca ñooñam te desu gisam gis magam waaw barsaq desu ko gis pencum yàlla waaw
dafa xa- xaye ñaaxeel dox gaawaan fekkat naa joon naa xëy waaw moo liggéey gaawaan mu naaj fa agsi waaw
fekk yendu jot waaw
gaawaan xam ne am na gan waaw
ro- romb fekk wiñ mm, mu nuyu ko sëñ xa- gaawaan xam ne am na gan waaw
te mën na gan waaw
waaye Cheikh Moustapha ay boot te ko yandu waaw
mu ne ko damay wii rek waaw
dikk njaarim ci gannaaw ba ñu añee waaw te teg saa jotul waaw
loolee def na bu dee raw diggam ak waa gaawaan waaw ñàkk a yandu ko waaw ñàkk a yandu ba ndax bi mu dikkee te lii xew waaw doon doxal ko mel na ne ba mu fa doxee waaw
xam lii te di ko nëbb sëñ gaawaan moo tax waaw mu wute yandu waaw te booba waaw
kenn xamu ca dara loolu baatin waaw
ndax kenn mënu caa xam lu ma la xamal te booba xamoo ca dara waaw
ba muy dikk waaw mu dikkee yàlla ci kanam bi ci njaarim bi mu jógee def fi xaali def xalifa yàlla foofe sëñ Mat Lamin Jóob dem wax ko ne ko sëñ bi day fan yi kenn gisu ko dem naa fa seex laaj ko léegi mu ne mu won ma fa mu duggal ne ma fii day la duggal ci suba ak altine yi waaye dara yëngu ko foofee nag ba mu fay dugg ci suba ak altine yi daa fekk Ibnu Omar teen boobu fekk sëñ bi ci mu dem ca teen ba duy ci di muy mbedd nga xam ne teen bi mbedd teen bi waral mbedd bi waaw di di kër sëñ Basiru gi yi ci biir kër gi waaw yi mujj bi fi sëñ bi jógee mm,
lii di kër gépp waaw sàkkat yi boole leen ñoom ñëpp amul waaw
loolu bi sëñ Basiru bi mbir mi bi sëñ bi dikkee Tuba borom bi dikkee Tuba la fa sëñ Basiru soog a dikk waaw
teen boobee nee na ma Seex dikkal waaw
gannaaw tisbaar waaw
ma topp ci moom waaw ma bàyyi teen ba ndig ak moom ñaari meetar mm,
mu bëgg a seet sàkket bi ci biti bi nga xam ne ñooy dem ca jàkka ja moom la ñuy romb
mm,
mu bëgg a xam biti ba fu mu toll waaw
mu dem ba ca sàkket ma waaw ma taxaw ci gannaawam ma gis ca benn benn pont mm,
mu yoqamtal ngir jot ko ma ngi xool digg ma te seen mi ak suuf ba mu jot benn benn ba xam ne bitti bi fii la bitti bi ne mu dellu si tànkam ne ma waxal Abdoulaye xaar ñu def fii bunt booba lu muy wax Cheikh Ibrahima Fall Abdoulaye xaar la koy wax waaw dañ fay liggéey bunt boobee mel na mbindeef ma si jaar dox lu may bi ma fa teerloo wata bii ñu koy dugal mm,
ak monsieur ne ko ci bunt ba waaye monsieur ñu ko bu kenn dox ndax moom pant ma waaw
mm, mu ne la mu ne waxal Abdoulaye xaar waaw ñu def fii bunt waaw
loolu booba lu muy wax ci Ibrahima Fall waaw Abdoulaye xaar la koy wax waaw
ñu ànd delluwaat ca biir kër ga waaw
ma dellu ca fa mu ne ma dellu ci samay nekk loolu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jot a wax waaw
defal na buntu waaw sëñ Modou Moussa nag boo bi nga xamee ne dikk na sëñ Modou Lamine Diop waxi ko loolu yi waaw sëñ Modou Moussa woowu ma waaw
ndax boobu sëñ ma sëñ bi yëkkati baatam te tontuwuma gannaaw na it moom mi am sëñ bi saa mbokk yaay na ko sëriñ bi ba ba woowuma nga nit ba ñu jël timis ba marax si maase mu rocci ko ci kanam mbooloo ma bari lool mu rocci ko ànd ak Ablaye Diop Lone waaw ak Cheikh Khary Dieng ak Makhtar Sylla ak sëñ Mame Lamine Diop Dagana waaw
ba ñu dikkee man di juróom ñooñu waaw
ba ñu dikkee ñu rom Cheikh Fall Xatta ba ñoom ci bunt bi waaw diggante bi mu ngi toll ci fanweeri mètre waaw
ñu laaj fa ma nekk fekk ma fa Cheikh Moustapha ne ma sëñ bi fa mu nekk ma ànd ak moom ba ca buntu sakket buntu buntu sakket la ma ne ko fii day la duggoon waaw
ndax moo xam ne nu xam ne nag ci altine ji la fi dugg altine ji ñu dafa xëy waaw dem fa teen ba dugg ca waaw dem fi fa daara ja waaw ba mu daara jël si borom tubaab dëgg ci tànkam waaw dugg dugg foofu nu xam ne lii moom tey ci suba la waaw tànk bi ci tànk bi la tege ñu daal di mu woo mu dikk seet tànk ba ma seet na mu tege ci tànkam nga xam ne lii léegi la waaye ñu tegul bëtam ci moom kenn fekk ko fii ñaari bunt ñu jàkkaar loola mu- mu tijji benn ba noppi caabi ja féetee ko biti féetee ko penku tëj ko seet ngir féete féete sow féete penku mu roof ci caabi ja jëm penku dugg ca biir rafaat caabi ja ub bunt ba boobu nag nga xam ne ay baraag yu bare ngi ak i néeg kër la daal waaye fekk na daana fa gëj aslëf dana am lu ma juróomi fan daal yu mu fa dem loolu bu mu gis woon mu nga woon im woon woon tànk boobee dun dafa ne foofa la dem waaye ba ma ko wane ci yor yor yor yor altine bi mu daal di ci tawe taw as taw soo xam ne dafa suturaal tànk yi ba nga dikk doo xam ne kenn dugg na laan nag dem gi ñu dem ci teen bi mbedd maa ngi toll ci ñeenti mètre diggante yaay sàkket yi bu ñu ne bunt na ci ki nga xam ne nag taw bi àgg na ci noppent fi nit ñi dox di dem ca teen ba di dellu si bunt boo mu woon dox yaa nga fa bunt bii mu woon ci tànk yi dox yaa nga fa nga xam ne nag tànk yi moom di dox ci digg bi di ñàkk ci bàq bi ñu sàmm nag bu nga xam ne bu doxee ci bu doxee fee yomba xam bu doxee fii yomba xam waaye foofa la yandu te bunt ba dafa mel ne dafa wubu waaye bu wubu woon danaa fa yóbbu ñam bunt ba maanaam nekkate booba tëggu ko ñu ngi koy bëgg a daj la fekk laf na ko ba nag bés ko ba mu mel ne ku ko bëgg a tas tëj bunt ba it jekki fa ndax kaaga bu dénk la bi mu toltee mu sekki fa bi jant bi bi jant bi sooyee ci antenne ji dafa ñu selm selm yi ñuy dafa ñu selm selm yi firde yi amee di ko lem genn ci basang yooyu laa tëral ci bunt ba nal ko ñu dàqul waaw
bañu dama ko foo xam ne fii mën na bu dikkee ubbi bunt bi ba noppi dem te duma ko yem waaw
dama ko yemale ci digg ba nga xam ne bu ko ubbee daal bu bunt ba moom bii lay jëm waaye bu ko ubbee damay daal di yeeg tànkam hmm
man tëdd fa ba asamaan seet dara yëngu foofu fépp dara yëngu fa waaw
lu xëy laal li basan nga waaw
juróom ñett ñi ma nekkal waaw
ñu jëm ci yitte tàngal ak di di ko déglu daal noo ngi toog di ko déglu amul ñu ngi tudd waaw mooy ñu ñu ma tëdd waaw
sëñ Modou Moussa ba asamaan seetee rek sëñ Modou Moussa la xëy ñaaxe muy talaata waaw
ndox muy dox boobu mu dox gaawaan waaw
bi mu dikkee te sëñ Modou Lamine Diop wax ko noonu lii waaw
man nag juróom ñooñu ñi man ak ñeent ñooñu ma la wax ak boppam mu juróom waaw mu dikkee ne fu ma mu ne fu mu ne ma wan ko fa mu ne mu bi buntu ba mu sakkat ba waaw
ba mu duggee ànd ak sëñ ma ànd ak juróom ñooñu waaw mu séddee kiristeef toog ci toog ni ba mu njëkk a jot waaw ci bitti hmm
bëgg ñii nag demal ko seetal ko waaw benn buntu dese fi bu ñëw sëñ Mat Lamin Jóob nag moo ko maxtaar fi la ngàbb fatafoor hmm
maxtaara ngàbb fatafoor ba waaw
bëgg fu ñu dem wala ñu jéem ci buntu nekk danañu nuyoo bu leen kenn fayit ñu soog a dem seet buntu ba hmm
mais biñ jëkk a jot waxtaan si la tanal fatafar ba gis ko nga xam ne suñu bi sës ci buntu bi nga xam ne dara lu sës ci bitti waaw
ñu fekk ko ca rumba hmm waxtaan jox suñu lamin fatafar ba waxtaan jox suñu lamin fatafar ba waaw mu seet ko gis ko hmm
daal di dellu si biir sëñ Modou Diakane moom si xarija ak Abdoulaye Diop la woon waaw
ndax seddee kilifa kilifa hmm
ci teggeen waaw ñu dikk wax ko ko bu teggeenu waaw
naan la ñoom ñaar man day maa ngi ca biti waaw
ndax booba nekkee ma ca dara lu may ñii li ñuy def kenn waru koo seet hmm kenn- kenn waru ko seet sëñ bi kenn waru ko dem fu mu la fu mu la jël wóoru hmm
waaye booba maa ngi am ni caat ak ñett waaw laa toll waaw ñoom xay mag lañu waaw li ñuy def ci seen wàcc la waaw
bi nga xam ne sëñ Modou dem na waaw seet ko teg loxoom ci moom xam ne lii la yàlla di dëdëwoon lim def la diggoon lim diggoon la def mu daal di tudd yàlla la mara tudd ne ko ma ci ñëw dile jógee ma fi maa nga ca biti ci juróom benn mètre lay war a toll diggante fi ma nekk ak ak foofee ñu ne hmm
mu dal di nag dëkk taxaw ci bunt ne bi moom ñett ñooñu ñaar ñi moom ñaar ñooñu ñaar daa jël Abdoulaye Diop la ne dikk ñu bokk taxaw ñu taxaw fa diir bu yàgg boo xam ne kenn waxul dara Cheikh Moustapha ne Bachir sëñ sëñ Cheikh Xarija di amoon ma Bachir dañ na ko salal mu dem ci kër sëñ Bachir goog yi sës ci télé bi fekk da daana dem waaye yàlla àtte na mu ngi ci dëkk bi mu dem fekk fa Mamadou Anta Ndaxiru hmm
mu ràcc sëñ Basiru rek mu ñëw ba mu dikkee sëñ sëñ Basiru ne ko daal waa Muhammadan tànn xëy mu dem waaye Muhammadan mu ñëw mu yebal Maxtaar Silla ci sëñ Balla Coro waaw moom la muy wax ak moom sëñ Balla dem ànd ak maanaam ñëw ñoom ñaar rek ci oto maanaam balaa moo doon doxalal boppam dañu ñëwee ñu ubbi leen ñu dugg ca biir ba commencé gis ko ba xam ne lii moom lañu doon jéem te mënuñu ca dara waaye gis na ko teg na ca bëtam gannaaw teg na ca bëtam ji tegul bëtam du mën a wax ko maanaam dara du mën a wax góor na dara waaye gis na ko ba ni xam na dañ moo di Mustafa it daal di koy wax ne ko dama ko bëgg a yóbbu ci këram gu ñuy wax Tuuba demut ba ca dëgg ba mu tàggoo ko mu daal di mu daal di ko koy may ne ko mënees na loolu nag fekk na booba demagut ci këram ci ci dëkk ba ba mën a téléphone gouverneur li tax loolu mu xaw ko sañ mooy gisu fi ñuy yëngutu gisu fi ñuy ñuy tiit gisu fi mbooloo gisu fi yëngutu ma tax loolu waaye tay fi mën ko may am na ñoo xam ne dañ wax sax ne dafa ne dañ mo da ko neexal xaalis waaye booba xaju fa te dara wum fu ma ci fi daal wum fekkiwu nekku ci maanaam dellu moom suñ moo doon sëñ Balla ñoom taxaw suñ moo doon ko féete ci wetu gannaaw suñ Balla féete ko ci wetu ndeyjoor bu bokk maanaam maye loolu mu ne ko Balla kat sa wata ba lañ ko war a jëli Abdoulaye la ana goo amee keesu weñ ñoom ñaar ñu wax ma ne ma sëñ mu wax ko sëñ Balla sëñ Balla wax ma sufoor ba yooyu si la tudd ma dem ca moom dama dama leen di wata ba lii rek lañ ma wax ma jógee ba dem ko sëñ Balla Coro ba duum siise di daji keesu essence ga keesu essence boobu ci la ñaari xande am fi ñu raf fi ñu def fi fi amul booba yi ñuy di essence amul booba xam ne xam naa ne day daj kees yi te kees yi wañ dana ci ne xam naa ne itam ba noppee dana bënn xandi gi ñaari xandi ci ne dana bënn xandi gi bu noppee dana ko teg ci oto bi bënn ko ñaari bën bën benn bi di ci xelli ko ndànk lañ koy def booba ba ba boobu jeex mu soog a bënn gi des ndax yaari xandi moo doon andi wata ci dëkk bi ma xam nag diggante boobu sam xel daal di may jox daal di koy wax ci bunt ba ba ma sëñ bi woon mu defa teere ma daal di koy wax bunt tegtal bunt la daal di doxaat ci biir kër gi nag daal di dikk ci bunti buntu Mor Mbay ñoom dañoo am daal ci biti ñu ko bëtu dañoo am daal ci biti foo xam ne dina mbooloo daal nekk moo xam ne ke sëñ Paate sëñ Paate rek fa ne dina mbooloo mi ne di ay bëkk nekk wala jëm ci juróom-ñett juróom-ñett ma daal di dox ci biir kër gi te booba daw yomb na ma lool teggi sëñ Modou sëñ Balla daal di dem ci buntu la dañu di wax ne leen am ko ma ne na ñëpp dem nekk ci buntu ba ca gannaaw ko buntu suñ paat te booba it lu ma wax dara du ca tegu lu may def ñu dem ñëpp ñëpp ma taxaw leen ba kenn gisul ma daw ta sama bët ci yéen sëñ Mar Jaxate noddkat ci buntu bi maa jëf ma sol ci dara lu weex ma ne ko sax booba xama ko ma ne ko ana kii mu ne amaana maar jaxate ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci dëkk yi nga xam ne dañuy fonk seen bopp mel ni mel ni ñoom it duñ la fonke nañu fonk seen bopp bopp fonk alxuraan fonk lislaam la ñuy fonk moom la ñuy bàyyi seen bopp naan la moom réew mel muy mbaakoon moo xam ne moom dina nga boole boppam ci mbooloo mi daal di koy wutal nag moo ko lëkkaleen ne ko sëñ bi nee na nga dem war ko sëñ afe ngeen dem nekk ca buntu sëñ paate dama ko waxale loolu nag xam naa ne dina wax du dëgg waaye balaa balaa balaa tas dina soxla sotti xam naa ne wata bi dina dikk wata ba bi bi mbooloo mi sollu ko mbakka jaxate lañu daje moom te man si yaa jort dara ndax sëriñ bi tëggale si ko lu woyof kenn jotuliwu ko ndox kenn newul ko sëriñ bi te nga mas kenn doon ci moom dara loolu boromam loolu xawee nag wata borom wata ba sëfi ba fekk na mag ñi ñoom ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci liggéey bi waaw ñu ngi ci liggéey bi ñu ko doon liggéey sëñ ma la sëñ Mahmoud Anta Naxiw mooy def li ñuy wax cangaay waaw sëñ Mad Lamin moo ko doon walbati ci xarijan moo leen doon sa yoral sa palaga ñu noppee man nag maanaam téeri sëriñ bi gannaaw boo xam ne sunu borom féetal na ko boppam teguma sama loxo ci benn cëram teg naa sama loxo ci jëmmam ci sama bët ci jëmmam waaye gannaaw buñ ko sàngee ba noppi na ñoom ñi dal naa leen dem dem andi sumye boo xam ne du am tóorub digg mu tóorub digg ndax sumye ba tuuti la sumye ba yàgg na si kër sañ Fallu gi ma andi ko jaaxaana la leen ko te mat la bu am lu ngeen teg ca booba ñoom ñoo ko fekk fa ma ko tere ak ko yóbbu fa moom dañ ko ca defee ba def ca baa ñu tedd yañ ca def ba ba nu fekk ko nu juróom-ñett nag Cheikh Moustapha Cheikh Bassirou Cheikh Mame Lamine Diop Dagana Mahmad Anta Ndaxiyo Ahmed Mbacké Cheikh Xarijan Moxtar Silla man mu di mu di man waaw mu di juróom-ñett man maa leen juróom-ñetteel man Cheikh soxna Fatou Sakko ñoom ñëpp di ñoom a mag ñoom a féete mag def ko def ko ci biir oto ba fekk na borom oto ba waxuma ko woon benn secret bu mën a xamee dara ñu yëkkati ñoo ñu yëkkati ko dugal ko ci oto bi juróom-ñett ñoo ñi nag suñ bàll coro ak maanaam cercle bi ñoo ci dolli ko di fukk képp Abdoulaye Diop la woon sëñ sëñ Modou Cheikh Moustapha yéene ne ko Daaru Muti ne ko demal jox ko oto ne ko demal jël ceer na mu dajeeg sëñ bi Touba ba ñuy dem ñu buñ ko ci defee ba noppi yéeg naa sëñ sëñ Bassirou ni ma wàccal def fi maag sëñ Modou Moustapha Fall njëriñ doon def ak sañet daa mi fan sëñ Modou Moustapha soog a dikk Touba jar na yëpp dikk dajeeg moom fii
moo ko andi hm woon moo ko andi woon moo ko andi woon moog Cheikh moog Cheikh Aydiang ak Mahmoud Anta Ndaxiyo ak Maxtaar Silla ñeent ñooñu ak sëñ Basiru ñu juróom ñoo indi borom Tuubaa fii ci Tuubaa ñu yónnee nag ci sëñ Fallu am na ko sëñ Mame Lamine bind wax na kilomètre yi nit ñi ñu yónnee ci sëñ Mbàkke Buso am na ko sëñ Mame Lamine bind lim na ci kilomètre yi Daaru Muti lim na kilomètre yi ñu jël sëñ Ndaam Abdourahmane lim na xëy na lim na kilomètre yi sëñ man numba saa ko fekk fekk na si am si xam sëtu lu ñëpp doyloo fekk na mu woo ko maan ak sëñ Saliou ak sëñ Abdoulahat dem jee dem waaw sëñ Saliou waaw waaw waaw noonu la ndax sëñ Saliou moo ma doon laaj ne ma danoo ba ma doon wax bokk dem ba ne ma danoo demal woote bi ñu nu bi ñu nu woon njeedeem te nu dem fekkunu ko fa loo ci xam ma ne ko ba mu leen woo rek la dugal la muy dugal mu ni siroon fekk ko fa waaw ñaa ñëw ci dolli ko nag moom boppam rek la waxoon waaw loolu xam-xam dolli ko na noonu
tey fay moom waaw moo fay jooy ba ñu ba ñu njëg leen tey fay moom moo fay jooy guddi la ñu ba ñu njëg leen waaw ba ñu leen ci la boobee guddi boobu dafa ci wala gaaw waaw la waxoon waaw
waaw bi ñu dégg bi ñu ko nee nag suñ ko andi ba Ceerno jëli ba jëli noonu jëli Ceerno waaw
ah
te mu ne boobu la Ceer- tax magasin bi hum, ci mu ne boobu la nag doon tax magasin bi
waaw waaw
ah oo Ceerno ba Ceerno di kee lam njëkk a wax waaw ci ña ko fekke waaw nañu yeddu jaañ mi fekke woon na ko waaw ba ko woo laaj ko la Ceerno njëkk a wax fekke na ko waaw ñun fii de wax na ma ne ba mu fa ñibbi alxuraan laa fay dëkkal waaw.
ba gisee ba gisee yeddu daal nettali ci gémmiñu borom la dàq waaw waaw ay waaw moo ci wax rek Ceerno nekk fii waaw
nag dalu mu teeg dindee mbakke bawal ak bakkaayal ak ñëpp nekk fi waaw dikk fi waaw
ba nga xam ne sëñ sëñ Ceerno njëkkee fi ba xaw a dalalee nit ñi ba nga xam ne midi war naa jot mu jóge fi jëm njëriñ ba wootee jawuñu mu dikk njëriñ boo xam ne dana jege tisbaar ci biir lijjanti bi ak waxtaane gi ak sëñ Moodu ne Musaa nekk fa ci lañu nekk ba ñun laataa woo soxna Fati jël nañ tisbaar ba noppi fekk na bii nga xamee ne maanaam bi seet na lii ba noppi dafa dellu ca dëkk ba indi gendarme ànd ak ñoom dikk mu ba gaare otom ci bitti mu toog ñoo xamee ne nag weesu na loolu waxee nañ ko wax nañu ko sëñ Masamba wax ko sëñ Afe ñu bokk nag jekki ñu ñëwul di setal am daram ci diggam ak ay bokkam di ko fekkiwut waaye saa it nag na dem di jëli xaalis ci kayit bi dañ fa indi mën na fukki fukki waxande ak benn waaye xaalis bi dañ koy defar defal ko yaari saggu defal ko jëfiire ampaate mbay moo ko doon toppatoo di ko wecc ko ci sukaay nga xam ne naka banque ba doxe dogewoon noonu lay mel ñu wutal mat jëm ne wutal ko ay saggu ak jëfiire ba xam ne boo gan di seet day defe ne lii alxuraan la mu tiñu wut ne alxuraan mu di ko def mu def ko ci gaali rek nga xam te ji yow fi rek borom Tuubaa nag xaalis xaalisam kenn du ko wàññi kenn du ko dénk kenn gisu ko tëjit ku nekk la sa sa fit may mu ne ko caa yàq waaye gisu ko wàññi gisu ko tëj gisu ko dénk kenn koo xam ne kii moo ca tane morom ne lu naa dénk kurul yàlla
waaw waaw
waaw
bi ñu ko indee waaw xanaa dañu ñu dañ maa wujjaa rek dañu doon daw waaw ñu doon topp barab bi mu nekk waaw ñoo ko defar ñoo ko toppatoo mu nekk moom nga daan yaa ngi daan ñëwee waaw
fekkee wu ma ko waaye nee nañ ñoo ko dugal ca biir waaw suñu leen jël suñ baara fay baax waaw waaw waaw dégg nga waaw
gannaaw bu ñu xàggalee waaw dañu julli fajar waaw dégg naa it suñ bàcc bu dul waaw moo ko jiite waaw moo ko jiite waaw waaw moom la joxoon moom la joxoon xamla gi ma jiit waaw moom ñu koy séddale waaw su ko xamla gi joxal xamla ba waaw
yow laa ko féetale waaw
ah sëñ Modou Moussa sëñ Thierno nag dikk njëriñ waaw
fekk na ku maanaam bi waaw
ba mu yóbboo xaalis ba bii waaw
dafa xaalis ba mu ne su ko wàññi waaye dafa wut ay diis ba taal ko ca ba mu bari mu def ca kaste tegub jaaroom maanaam maanaam bu ndaw bi tegub jaaroom ba xam ne ñu dajee buum bi ñu xam ko bu kaste bi dañoo ñu xam ko noonu lañ ko defee ci seen goro waaw seen seen seen goro ne- seen goro nekkal fi buur rek waaye fortu na la nekkal commissaire ci alkaati waaw ak la nekk fi moom ci gendarme
mu ne nga kumaanam ba
maanaam ba dem këram andi ko ñaar dem këram andi ba ñaar fukki gàdd waaw
ne ko ci wotaam waaw
ab alkaati ci kër com- commissaire waaw ak gendarme la nekkoon këram waaw
boole leen ba ñu mat ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ak ñeent waaw
mu dugal leen ci woto ba waaw
sëñ Modou Moustapha nag fekk na bi nga xam ne lii sotti na ba sëñ bi dem na ba noppi waaw
dem nag dox génn ci buntu sëñ Paate ci soow waaw
ndax ndax dañ ko tëjoon waaye dañ faa dox waaye kese wuñ ko waaw
fekk ni ñaa ngi toog foofu ci kër Jóoba yaaba gi mbooloo mépp mu yaax tàll xar yi nekk nekk fa ñuy dee ba sëñ Modou Moustapha génnee waaw
ñu daal di koy toñ noona mu jëmaat mu jëmaat ci këram gi mu jë- jóge def xalifa waaw
ci càmmoñal kër gu mag yi waaw
ba nu doxee fekk benn benn ceeb bi la ko sëñ bi def waaw
gone yi man nekkal it juróom-ñetti gone yi waaw
yëguñ ñu dara ci nun waaw
ci guddi gi ndax tëj ñu diggante mi waa fañ dañuy mën rek lañ yem yëguñ ñu ne itam waaw dañ caa xam dara waaw
xama leen yemal rek lañu yem bi lee xewe ba noppi nag ño- ñoom ñu ngi ci baraaj bi ñu nekk foofu la ñuy fanaan guddi googu waaw
jàngaloon naa sañ sañ jóob jàngaloon naa koy xasida booba ku neex baat la la jóge njaam ndaam xasida gu yàgg ma ne ko jàngal geneen waaye taxul ma wax ko li xew sañ jóob am lay jóob lew na waaw
ah bi maanaam bi demee te def ñaar fukki soldaar yooyu ñeent waaw
xam ne soldaar am ci dëkk bi dafa lépp dëkk bi waaw
mu dikk ci ci ponk bi féete siin lakkle wàcc wàcc ca wata ba jiite leen ñu def ñaar ñaar ba mu dikkee ba fa ponk ba mu taxawloo fa ñaar daal di ànd ak moom ci tànkam ànd ak ñoom ci tànkam ñu ko def ñu topp ci moom di dox ñaar ñaar lu ma si juróom fukki mètre taxawloo fa ñaar nga xam ne ñaar ñi ma taxawloo fii ponk bi fii dana dox ñu bu jógee jëm fee ci juróom fukki mètre fii lu kii dana ne fii ato dikkee ba agsi bi fii dox diggante juróom fukki mètre yi ñu di ko baagante ci ci war war di waxtu ñetti waxtu ci guddi nga xam ne sëriñ soldat si ñuy garde bañ ko dugg ci kër gi noonu la def nag ànd ak ñooñu fu mu dem juróom fukki mètre yi ne ma taxawal seen nit ñaar baag si ba del si ci ñii baag si ba dellu si ci ñii dal di dellu dëkk ba waaw dañ ma dog ak ñooñu fekkee ñu lii waaw man ni sëñ Modou nag ba may saw a génn ba may saw a génn ma topp ko moom mbooloo mi sës naa ci ñoom te booba commencé ci yow kilifa la dañu mbooloo ma dañ lay sali ma boo xool caabi ji bëgg mu amee ko ndax man lii ki ma ci doyal tey sama xarit nekkatu fi kon nag ñu xam naa ñu moom seen yëf naa leen jox seen yëf mu ne ma mu dee ma ne ma demal demal jekki fa waaw waaw dee jox ma nangu ko da ko nangu da nangu ma ne demal jekki fa ndax caabi ji yóbbu ko ba suba ma di ko jël si loolu jikko ci dara ak bokkam waxaat ma ah man ma dal di wëlbati ma dox jëm foofu ay ma dem dox jëm ci buntu ba war a dugg ci buntu bi ci ka sañ pate ubaat ko waaye buntu caabi ji nga xam ne mooy kër gi moom moom laa amee bu ñu tëj bu ma tëjee buntu bi tëj bee jëm benn caabi lay doon waaw dañoo bokk seen jël.
xam benn benn benn caabi lay doon. bii bokkiwut ak bee.
ah waaw
waaye bii buñ ko tijjee ba noppi.
ba ba ngay àggati yëpp.
waaw waaw buñ tëjee buñ ko tëjee bee nga amee rek yi nekk. ba mu walbati ko ba bëgg a duggaat ca biir. sama jikko giir ma. na dabaat ko mboqal ko mën a seex sama lekk jël do fekk na yooyu yooyu jéego gën a bari a delluwaat ba bëgg a dugg ca bunt ba dellu ñii ñi doxal doxal sama xel dégg nga dikk ah dikk wan ko ne.
koy wax rek. waral ci koy wax Mbacke.
waaw waaye waxoon naa la rek Mbacke li ñu bëri ni ci yéen bopp. la tey ñu bëri ko la koy taxal ba.
waaw waaw waaw waaw sagata. ah sëñ bi de dama ne yow lay dane ma borom tubaab dane ma. ñi wax Mbacke ñi ñuy wax Mbacke Mbacke. yéen a ñoom dara man dama mel ne lu jóge ci yàlla rek.
waaw moom kay.
dégg nga moom la kay.
daal damay wax ne ma sa baykat noonu nii la demee yëtuwut ak wàccil ma xar dara waaw sëñ bi laa dama koy yedde di di di wax ni nga leen fonk rek mooy ne fonk bopp yi waaw.
ndax sëñ Modou waaw. waaw bañ demee nag ba.
ma de ma dellu nag ba ba ma delluwaatee nag. waaw ba bëgg a jox. waaw saa bëgg saa benn di bëgg rek. ndax biig ba tey ba mu am xewa ba tey kenn indi tukuram wañ di ko di ko fab wala kenn tudd yàlla moom day dégg ba ñëpp yëlandoo rek
dégg nga ma dellu mu jël li ma naan jox ko gune yi ma nekkal gune yi wërmal ya nga xam ne ku ci ne bi nga amee di ngay tuur ndox te te suba déwé ma ci soxna fàtti lenn lu mën a tane kenn déwé ma ci soxna mbéyee dara déwé ma ci soxna tuuti dara loolu mooy mooy kóolute yi ndax li- ndax defatuma leen ay mbokk defatuma leen kóolute yi rek waaw amaana amaana amaana amaana si moom noonu lay mel waaw
waaw
ah bi nga xamee ne nag Cerno Birahim li yem na yemal na dëkk bi li ñu ci mën a yem waaw
bàyyi leen ci seen i jël waaw mu dikk nag mu dikkee nag commandant bi bi mu xëyee waaw dafa wutal ñaar fukki soldaar ak ñeent waaw
dikk wutal leen ca suñu fi ne woon ci ñu fi newoon waaw day ànd ak ñoom bu dikkee ba loolu ak ñoom bu làkkee ñaar dugg ñaar génn
Hmm.
dem ba defaat ko noonu ba màgg waaye dëkk bi kenn xamu ci li ñuy def Mhm.
kenn tënkawu ci dara waaw
toogee nag ba nga xam ne kenn dikk na waaw
ñu yebal benn garda waaw
jox ko kayit Hmm.
fekk ne tax kayit yi am mooy xaalis bi mu doon joxe bi waaw
sëñ Masamba gis na ci fekk sëñ bi bind Hmm.
mu ne wii de buñ ko mboole ci xaalis bi yóbbu dindi ko Hmm.
jox sëñ Modou sëñ Modou seet ko jox sëñ Balla mu seet ko sëñ Balla nettali commandant bi ne ko lii ñu lim sëñ bi loxoom ñu delloo ñu delloo fekk ba ca biir dañuy wutaati xaalis Hmm.
ñu demee ba nga xam ne nag guddi gi sori na lool waaw commandant bi ne fekk woowee dañ ko delloo si ndax xamu ci la sëñ bi def totalu xaalis bi gannaaw moo ko bind Hmm.
xamu ci la def totalu xaalis bi mu def waaw te fekk boo xamante moom moo ko tegal donc delloo rek ci biir Hmm.
maag sayit nooy ànd di jëli xaalisu kayit bi bu bu amee ba ba loxom fees ba ba ba la mu attan mayit ma am na ànd dellu si ñoom ba ñuy delloo ànd Hmm.
mu laaj nag wax nag bi nag wax loolu laaj laaj fekk bi da ko yóbbaale na ko Hmm.
moom ba ma gisee fekk ba delloo si da ko yóbbaale fekk nag mu laaj sëñ Modou Moussa nag ne ko waaw lii ci loxo bu mu nekk dañ koy laaj boo lajee mu jox ko sama wenn pour boole wu ca fekk na message si la nekk Hmm.
nekk Touba DC bi waaw
mu jox ko sama wenn pour Hmm.
ba ba nga xam ne nag yer na dikk na waaw ñu yebal benn garde nag waaw mu dikk fii ci sama bunt ci wetu ko sëñ Bassirou waaw
nag garde yi ñoom ñëpp a ngi taxaw Hmm.
benn boobu rek jiital ma nag Hmm.
yow man ca gannaaw kër ga waaw
ma da- ma dama doxee ci mbedd yi ma doxee ci mbedd mi ma dox ci tër yi waaw nit ñi nga xam ne ay bokk lañu waaw
ah gannaaw garde yaa ngi fi waaw ñu ngi ci biir sakkee di di yër waaw waaye kenn du génn mbedd mi gannaaw garde yaa ngi fi kenn du ci dox Hmm.
ñu nekk di yër ñu dox boobu lañ jël.
di ah Sa xaaj bi la doon jël déedéet man la doon wax si waaw waaw waaw jiital ma waaw maa ngi jëm ci Thierno ñoom waaw waaw
ba ba mu demee mu ne ma maanaam ne ma cat kay ba cat gi journal bi Hmm.
bi moom bi ma jox kay bi laaj na ma ne ma tudd waaw fekk na tegtal nañ ko waaw
mu nekk waaw
ñu dikk foofu jiitale ma gàddu fetalam waaw man dem ci gannaaw kër ga Hmm.
mu ne ma lii dañ ko lii fi sëñ bi bàyyi dañ ko bëgg a seet ma joxal ko ma joxal ko Cheikh Moustapha ne ko seen war a ma gis fekk loola ma tuutal saa bopp ci ñu di ma ko laaj bi ñu àggalee foofa ba waxante li ñuy waxante tisbaar jigéen fee jot Ceerno Birahim nag bëgg jigéen ñi jublu ci seeni bopp man Cheikh demal wal ma ñu toog ci baraag bu mag la ci suuf si kër sañ gaawaan nga bi man Cheikh demal wal ma sa ndey bëgg nag mu yëgal jigéen ñi waaye dëkk bépp benn bëkk néeg boo xam ne xam na ci li xew dara lu may deeyaate amul dégg nga ma waxee loolu yi sëñ bi joxate am xel ab coono ngi ci seen digg boo xam ne wenn sa ket mànja ci kenn sa sa néeg amul kees gu wër sa néeg waaw kenn amu ci kees waaw loolu li ko waral am na ci ku ma doon wax ne sëñ bi dama bëgg ñu defaral ma dara mu ne ma ñëwee kat ñu ay cosaanga dong la ñu kat ko kii wutal ñu ko néeg la nga xam ne ku ci nekk sa néeg mbooloo ci nekk moo xam ne ñu bare la moo xam ne dafa fees dell li nga xam ne sëñ Ceerno Birahim wax na ma loolu ne ma demal war ma sa ndey bi ma dikkee seen digg seen digg dafa am ñaari bant yoo xam ne yi taati garab lañu tëral ko ci kaw mu des tëral ko ci kaw te bañ ko teg ci pegg yi xanaa li ma genn wàllu meetar ma teg ko ci teg benn ba ci li ma genn wàllu meetar genn wàllu meetar wala des ne dafa am nag sàkketu seng waaye ànd ak doomam ànd ak ci laatal teg ko ci kaw di julee ci yoxum soo ne nga sonn ndax xam naa xam-xam xam ne bu kenn diggee ñun sëñ bi dafa dem kenn du ko def yeddee dañu seet xaru lu muy wàññi foofu la di jigéen di di di di doxalante kenn du ci fekki sëñ bi ñu def def ci biti ma di soxna Fati ana dama ñeenti man fa len doon ne kooku ma ne ma wax ji bëri lay wax ma ne ma ci li muy def fii waaye tontu ma ko daa daa dem bi bi ba tey mën ñu xam loo xam ne bu mbir mi wiyee ñu ne xamal nañ ne bu Cheikh Mbele nangam kay nangam soo dem nga ko nag mu romb ko wax loolu nan dana ñëw ci anam ñëw bu gudd ay bokk lañu ne ko soxna Fatou de sëñ bi dafay jóge mu ne ko mu ne ko tubaab yi dañ ko yóbbooti ngir sa garde yi bii ba tey mu ne ko dee sa borom a ko woo soxna Fatou nag daal di bëgg a yooyu ci biir yàlla ne ko boo boo defee noonu que nit ñi dañu am fuñ sës moo daal di ne kos ne nun jëriñ ba set rek laaj ko nag nañ ko yóbbu nañ ko tubaab ba noppi bana fa di delloo nag bay wax jigéen ñi ñoom ko jëkk a wax bañ yooxoo ñu gis xam ni lu ñu yóox ñëpp ku ne da nga yooxu fa nga nekkoon rek mu mel ne kër gi dafa lakk loolu yi nag ci waa biti bi jéggi ne bi ñu déggee kër yëpp di yooxu dëkk bépp daal di yooxu yooxandoo kenn negut na kenn mënta laaj ba xam lu ñu yooxu ñëpp dañoo yooxu kër kër kër sëñ Isa daal di ko yëgg daal di yooxu Ibrahima Fall dégg ko ndax moom it waxuñ fa dara di ba tey daal di yooxu dëkk ba bi dëkk ba dëkk ñu def na kenn yooxu boo xam ne moom la ñu yendoo kenn mën ne kenn sañu ne kenn noppil kenn sañu ne kenn mu ñëw ñëw na lool ñëw na lool na. noonu la demee ci sama kaam. wuti ma ñu dara. ñett li bu ca wuuteeg ñett yi waaw borom dajaat def def dara jee bopp waaw rek waaw waaye waaw nekkul gëm nañu ko gëm nañu ko waaw xam ne am na ay laaj sax yu ñu bëgg a waxtaane waaw.
waaye xam naa ne mag nga sonn nga ci dijaay bi waaw ñu noppalu tuuti waaw eh, ba nga noppalu ñu gis yaat noo waaw waxtaan waaw mën naa cee dolli dara waaw waaw démb dara ñu tey ko ci démb tey may natt saa bopp waaw
borom Tuubaa nee na ma waaw eh, tubaab yi da dañ ma doon saraxu waaw sarax naa leen téeméeri junni waaw sunu borom nee na ma wàcc naa ci ñoom téeméeri téere waaw
téeméeri téere yooyu tubaab la ñu doon doon waaw sunu borom tubaab la leen daa sax waaw
loolu maa ngi ko ci dolli saa bopp waaw ngir leer li may wax waaw
ma ne ma ne ma ne téeméeri téere ñu ne sunu borom waaw yëpp a ngi ci alxuraan waaw lépp téeméeri téere yëpp a ngi ci alxuraan lépp waaw booba nag waaw ñu def ba de- xam nga téeméeri junni mu ngi mel ne junni million tey waaw ay jur waaw yàlla booba amul benn tarixa boo xam ne waaw danañ joxe lu ëpp junni amul benn seex boo xam ne dana joxe lu ëpp junni joxe na téeméeri junni loolu ñu sas ko waaw ma ne tubaab bi danañ ma saraxa sarax naa leen téeméeri junni waaw sunu borom nee na ma wàcc naa ci ñoom téeméeri téere waaw
téeméeri téere yi ne ñëpp a ngi ci alxuraan waaw ñu def nag ba- ku ne ku joxe nag ñu laaj la nga la nga gën a bëgg waaw ñu defal la loolu bu dee ak seer waaw joxe téeméeri téeméer dërëm waaw wala ñetti téeméer waaw.
ñu wax ko manta bu jar fanweer jukkale ko waaw
bu dee joxe lu ko lu mu joxe daal waaw ñu ñu ñu- ñu jox ko fukki ceeb waaw fukk saasa ka ja waaw dégg nga sëñ bi nag ñu laaj ñu ne alxuraan rek la bëgg ñu seet nag benn téere waaw
rafet bu nekk ci kees waaw
ñu jukkale ko waaw sunu borom nag ne ko waaw bindal naa la téeméeri junni alxuraan téeméeri junni ñi alxuraan waaw
danaa la defal
waaw yoolu waaw ka jëkk a juddu xees ñu ma nettale waaw ka jëkk a juddu kenn ñetteel nag waaw ka jëkk a juddu xees Ah.
ka jëkk a mujj juddu xees ñu defal la ma leen digal Ah.
bàyyi la ma leen tere la ma leen jox kon jox naa la ko jooju wax dolli ko borom Tuubaa waaw
ba nga ubbiwul buntu ba dafa toll ci biir ñu ko wax waaw dama ne nit bu nit bu tuubee waaw
nam la doon def ba kaye waaw sunu borom da koy dëpp waaw raxas ko ba mu set wecc te du te du ko jox fattuwa da cay def lu baax ba mu toll fa mu toll woon mu soog koo jox mu mën a ci def dégg nga mooy jooy moom masala noonu la toll waaw
waxtaan njëkk ko waxtaan mujj ko waaw
am na nekk wax na ne waaw
am fekk ko ak ñeneen waaw ñu bariwul waaw ndax ci biir la waaw
loolu ngeen dégg ne moom la ñuy laaj ci bammeel waaye bammeel lañ fay laaj waaw mooy na nga defoon ak borom jamono ja boo nee baax na lépp baax bu newul baax na dara du baax dañu koy baaxal faw
moom moom ma- moom masala noonu la toll li ñuy wax noonu la toll moom mu ne waaw
na ma waaw li nga xam ne lu waay xam yàlla ko may waaw lu waay ñàkk moo ko ñaanut muy subhaana li ñu xam li ñu xam ci seen xam-xam yem waaw lu waay xam yàlla ko may lu waay ñàkk moo ko xañ moo ko bëgg rek waaw fekkee loolu saxut li mu wax a sax waaw mooy dëgg de waaw moo koy ñaan sax ji moom faw rek fekkee na faw rek moo koy dégg ñaan naa rek ci moom mu ne lii ma man lii ma am dund ma ko ci kenn waaw
ne Abdourahmane Cissé waaw
waaw ñooñu ñooñu fekk waxtaane woon nañ ko ba Abdourahmane xam ko waaw
mu wax ko ne ko waaw ñooñu li ñu wax mu ne ko lappatoo yi mu ne ko waaw moom dina ko tudd fii waaw ma ne ko ma ñoom de dañuy dañuy béy xëriñ ji bari sol ko ci saako bu ab saako ay saako boo xam ne saako yu bari la ñuy do- dog sol ko ci saako ba waaw
mu sol andi gileem waaw
def ko ci ñeent jàpp fee ñeent jàpp fee ñu teg ko ci géem indi ñeen ñeent ñu jàpp fee ñu jàpp saabu teg ko mu ñu fab loolu ñuy wax perengal boole leen mu daal di wuti gaal la mu dikkee ñu yësal ko rëcc rëcc torngale lappatoo ba rek daal di dikk ne na ma dal waaw na ma dal rek ñeent jàpp fee ñeent jàpp fee ñu ne ko teg waaw mu jàpp fee mu muy wuti basul ba mu ne ma ne ko noonu nii la ko amee jëddandoo ma ko ci kenn dëgg la waaw waaye nag waaw ma jële ca ma jële ca duma duma am noppikat dégg nga waaw mel ma ne saa bokk ci noppi waaw waaw waaw waaye ci sëñ bi rek laay wax nag waaw moo tax moo tax war la noppi ma ma jële ca nag ne waaw kooku mooy borom Tuuba waaw
ñu ko jëlee ci bàyyam waaw ñu ngi fi wutal ñu sëñ Tuuba waaw ko fi ko fi ko fi wutu ko fi wutu yaa sëñ Tuuba waaw ma ne barke borom Tuuba waaw ko nga wax waaw ma ne barke sëñ Tuuba waaw ñu ngi ko fi wutal nga wax moom wax dëgg la waaw dëgg la waaw li ma bëgg a wax nag ci sama xam-xam bopp la waaw
sama xel laa ko jëlee dama ku dem de damay wax dong nit waaw déedéet dëgg la kay
moo xam nga xam ne képp koo xam ne kii mi ngi amagul barke ni man ne ko barke ñëpp la ko borom Tuuba ameel waaw
ndax moom la géej gi roy géej gi mooy ji dugg sànni ngi leen denc li jën bañ fee ko amee jën ay ay jën muy camion bu feesit ay jënam la yor waaye jën ñëpp a ngi géej gi waaw
man dellu takk ci moom na waaw dëgg la takk ci moom ne su teg tànkam mukk fu mu ko mas a teg yoon yii waaw fu mu ko tegagul rek la may teg rek rek du taxaw du dellu gannaaw tey di dox rek su may maye bi maye si lu jëkk ba ba ba danañ defe ne dana la muy maye dana maye ba ñu defe ne loolu kenn dootu am lu muy mel waaw ku maye nga nga ëppale ko jàppale ko ñu laaj dëgg la ñu laaj waaw gannaaw loolu lay sem waaw sunu borom yee na ma ci ne waaw day abaja def lu sooy def borom Tuuba mhm, mooy fukk ñi mu amal ñaar waaw
nga xam ne ñoom la fi bàyyi ci góor waaw
a jot yi jiital na leen waaw
kenn ku ci ne waaw
gis naa sa tedd waaw ak sa mat waaw waaye ku ci nekk ba nga ba nga gisee waaw maa ngi jàpp ci sëriñ bi ne waaw
aw jiwu nga waaw dëgg la la nga woote dana la la sa daraja la nga cay woote waaw dana ëpp ne dana ëpp la nga teewe waaw
ne jiwu raxat ba saako jiwu ñu yow dem dem ab ton la waaw dem na mu toll waaw sa gannaaw daal dana la ëpp ne la ñore sa tool yi ëpp jiwu sori ëpp li li li loolu laa jàpp mooy dëgg loolu laa jàpp mooy dëgg de waaw loolu dëgg ma ko xel nag waaw waay waay li ma li ma doxal woon waay muy dox waaw boo gisee loo xam ne lii dafa am waaw ñu mën ko mhm, yàlla ko def waaw dëgg la moo ko tayit waaw lu jëm def ko déedéet waaw xanaa mën na noppalu waaw waaw ah, wax na ne waaw dégg naa ci moom mu wax ne waaw
luñ la digal waaw lu ñu di lu ñu la digal waaw la nga bëgg ñu bëggal la ko mu di la jëriñ te loolu moo ca ne waaw dëgg la lañu lay tere waaw la nga bañ waaw ñu ba- bañal la ko mu di la lor te du la jëriñ dara moo ca ne dëgg la loolu de xam ngeen ne ku koy wax ku koy wax koy wax desu la ko laajaat
waaw koy wax koy wax waaw ci la la la waaw.
la la foofu Waaw.
waaw
ah, te te desu la ko laajaat waaw
kan ko def ci moom ci moom lay ne waaw waaye kon du ma du ma la nekk am juróom-ñaar fukki at di ko nettali at déedéet te dara du sa dolli déedéet dañuy dañuy jublu woon dañuy jublu woon waaw mu ne fi du sottiku
waaw du sottiku waaw du baaxee xam na ba nga xam ne xañ na bés yi nga xam ne jéesi jéesi ci mën a jëriñu may dama jublu waaw ci ñu def moom itam waaw aw nit di ko sotti di yóbbu ba fu ñu dégg liñ ne tey tuwaat te mu wuteeg lii yoo xam ne amul li ñu waay déggoon de wér waaw daa bëgg daa bëgg lu wér lii nag boo tey lii lu wér lii nag daa bëgg mu rek am na fépp foo waxee ne wuteeg moom rek ci teg kii mu mu rete ko
da saa bés loolu waaw
tax na ma bëggoon waaw
ci wàllu taalibe waaw
ñu ngi yàlla nangu la jëkk sa yoon wa waaw